mbokki internet yi saxoo di seetaan NGTV Sénégal dalee na jàmm ci xibaar xibaar yi li ci gën a fës lu soxal législative 2022 yi nga xam ni vote yi mi ngi wéyee ni fépp ci Sénégal maître El Hadji Diouf nag moom évacué nañ ko urgence maanaam force de l'ordre yi ñoom ñoo ko évacué rawale ko ci biir otoom ci lu gaaw ginnaaw bi nga xamante ni ay xale ñoom ñoo ko songoon di ko yuuxoo naan ko Sonko Sonko Sonko Sonko moom maître El Hadji Diouf nag foofu ñu ko doon defee ñu fàttali leen ni moom foofu nekkul sax mooy bureau bi nga xam ne foofu la nar a voté mais dafaa ñëwoon di gunge ki nga xamante ni mooy Pape Mademba Bitèye waaye xale yi dañ koo yuuxoo Sonko Sonko Sonko Sonko ba tax kii di maître El Hadji Diouf moom koo rawale waxuñu nag dañ koo rawale mu yóbbu këram waxuñu dañ ko yóbbu hôpital mais El Hadj Diouf urgence daal mooy information ñu fàttali leen nag lu soxal élection yooyu mi ngi wéyee ni fépp ci Sénégal naaw bi nga xamante ni nag ay gox yu bëri fépp ci Sénégal nemee ko nañ fa ay taw waaye kii di Ousmane Sonko voté na fële ca Ziguinchor naka noonu président de la République moom it voté na fële ca Fatick maître Abdoulaye Wade moom it voté na fii ci Point E ak yeneen xamante ni ku ci nekk génn nga voté ji macha allah ba vote yi ñu ngi wéy di incha allah lépp lu fi roose information di ngeen ko am fii seen seen YouTube bi di NDC TV Sénégal wéy leen di abonné wu mbokki internautes yi